wallu diine dafa bokkul ak wàllu àdduna wàllu diine wàllu matériel bi accessoire rekk la li am solo mooy nit ki ñu koy dénk moo tax baatu responsable moral mais yàllaa ko njëkk a tudd mais responsable moral it yàlla wan na ko ni ko am na ku nga xam ni bu ma ubbiwul xolam la ca war a nekk nekk ca ba yóbba nga bañ caa sonn tax wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan foofu la battu responsable moral ñëwee ci alquran mu ni ku ma jiituwul ci moom ubbi xolam baye bo un responsable moral bañ a jëm ci moom mais un responsable moral c'est qui ماميت دفع عم لن كردوين بجك يكونوا ربانيين ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دونك ان ريسبونسابل مورال ان ديسكور كسي تاخول مو جوب لين كوي دوي مودي با فخي كي نيت ني ñu amé jikko yalla mi ñu yaakaar baatu rabbaani yéen yar la waaye itam yàlla def ca am cër waxuñu la ñu yar la n'importe comment mais ñu yar la bëgg nga nuru sa borom mi la fi bàyyi moom mi koy def nag mooy seet bi ma kuntum tuallimuna alkitab wa bi ma kuntum tadrusuun li mu jàng ci xam-xam ak li nga xam ci expérience la ko amee yépp na ko utiliser waaw bi ci des ñu di ko soxla ci moom mooy li ñu waxoon ci yonent bi boobu bu amul c'est pas la peine te mooy azizun alayhi ma anittum xarisun bil muminina raufur rahim am na koo xam daj ngir jëmmi boppam mu diis ci moom ndax soxlawul ñu daj ngir jëmmi boppam li mu soxla mooy li ñëpp bokk na yéwén waaw xarisun nag aleykum yéen ko gënal bakkanam ndax moom mu tàrde walla mu ñàkk moo ko gënal ñi ko yàlla booleel tardé wala ñu ñàkk bi ci des mooy bil muminina raufur rahim ñëpp la ñeewante ki nga xam ni bu sonnul du am li muy wut te yow boo sonnoon boo sañoon boo sañoon dara du ko sonal ndax ñeewant waaye wóor na la nit bu sonnul li mu soxla du ko am baja des itam ci critères yi ba tey yi nga xam ni ci churut yi nga war a bàyyee xel c'est tellement important innama waliyukumullah innama waliyukum allah maanaam la responsabilité partagée innama waliyukum allah wa rasuluhu walladina amanu waaye itam bu yemoon foofu rek ku ne daal di taxaw ni ki la bokk waaye bi mu ne innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina amanu mu tekki ni alladina yuqimuuna alsalaa ويؤتون الزكاة وهم راكعون آه. ديو سما ريسبونسابل لا ريك دو تي بادج دا خامنا لوخنا بو جوتي نييب تاك بادج ما انما وليكم الله يالله سين سين كليفا دابور غناو يالله ورسوله yonent bi moo tegu gannaaw yàlla hiérarchie bi ñu ne ko gannaaw yonent bi noonu alladina amanu ñi leen seen pas-pas wér waaye ñi leen seen pas-pas wér est-ce que mën nga ko xam ba mu jàng problème xol la mais mu jox la ay repère alladina yuqimuna salaa li ñu leen sant ci diine ah? du ngeen leen ki jiitu du ngeen leen jiitu ci julli gi du ngeen leen jiitu ci azaka gi duñ ko def périodiquement ou bien pour la circonstance mais parce que hum sans complexe du ci lañ koy mais jamono bu programme mu ngi mel ni tey tabaarakallahu un responsable bu bëgg toppatoo affaire responsabilité bi te tout le programme bi njaboot yi di nekkee du ci def benn yitte du ci def benn jom même bu fekkee ni ci cadre dimension am na sax loo dépassé mais njaboot gi mooy tax pour les encourager moo tax amul ngant ku amul ngantu bu ko jar buñ la xasse ba jox ay njabot nga di leen superviser luñ leen di tudd rek war na bu jotee donte benn laps de temps sax nga ñoo feeñ ko ci ñoom boy demat sax soga demat wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawaahu وكان امره فرطا لولوتو هي الله واحد كون ولا تطع وحنا ده في خوف لي لي ولا أه، أه، دي وحني كوني دو ماكو توب بوبو فا ني جيم دافا سوريول واي بو سوري nga top ko sen cheikh sax dat ni même bu sore te jaruko doko top lol la alquran di wahni bala ngay séq ak nit di yegg ak moom fenn fi xamal ndax yitteele na ko noonu wala déet parce que koo xam ne aghfal na qalbahu an dhikrina nit dana nekk ci mbir te xolam gàntu lu jar di seetlu nit dana bokk ci mbir te du tee xolam di gàntu moo tax nag boo xolam gàntoo doo ko forcer waaye bul basé ci moom ba mu jeex parce que daf lay tardel parce que kaana amru furudan lu ne da koy néewal yooyu yëpp alquran a koy jàngale ba ca des nag mooti nag wax gi mu wax ba tey te mooy ñu ñu la booleel ngir yàlla ak responsabilité nga defe ni say jaam lañu kooku it alquran nanguwu ko وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي وحين أها بس كونو دفتي يو لينو دفتي يو بمن لا جيتل تي كانا مينيت ñu mën nangu ni seen responsable nga waroo leen jàppe comme say surga yow mooy kunu ibadal léegi parce que li ngay xam mooy li ñu def ci yow ba nga doy leen bu ñu ko deful woon ci yow doo tane kenn donc toujours sa priorité mooy bala ngay xool ñi nga yilib nga xool ñi jiitu woon ci yow ba def ci yow li nekk ci yow donc boo xoolee loolu sa taxawaay taxawaayu cant lay doon mais dootul nekk taxawaayu gis sa bopp parce que li yàllay wax ci xadis si yem boobule lu jara seet la mu ni bari na ci sama jaam yi ñu ma ñaan mu ubbil leen baabal ibaada waaye ma lànk dina leen bàyyi nag ñuy julleeg di def yépp ma seetlu ma ca man nangu waaye seen baabal ibaada dama ko tëj ndax ragal bu ma ko ubbee ñu gis ca seen bopp te bu ñu gisee seen bopp lañu defoon yépp dañ koy ñàkk ca la demee ni ba mujj ni pourtant li ma defal yonent yi te mooy ma defal leen ma yomb na ma ma defal ko jullit yépp waaye bu ma ko defoon ñu tiitaroo ko te am bàkkaar ma baal leen ko moo gën a sedd ci man ñu def dara di ko gis pour wax la donc kon yooyu yëpp bàyyi ko xel dafay am solo bu mujj bi nag jara bàyyi xel mooy yujahiduna fi sabilillah wala yaxaafuna lawmata laa'imin jeex na la ñuy def dal ma sàmba taxul ma dem ba def taxul yàlla tax koo jiital boobu nag sa liggéey dana yomb mais booy defee liggéey bi ngir ma sàmba wala pour ma demba rekk bis bu changement amee rek nga changé te dama lii ci benn téere bër ki dem boroom wax wax bu ma saf mu wax wax bu ma saf wax bi moo di mu wax ci téere bi ni yow mi jàng téere bi wóor na ma man mi ko bindil ni li ma la wax dëgg la mu ni ko kon boo koy jàng nangul dëgg gi waaye bul xool ci man mi ko bind c'est tellement important xolal dëgg gi ma wax mais bul xol ci man mi ko bind ci tellement important pa yu jahiduna fi sabilillah loy def rek jiitalal yàlla bi nga xamni ni tax nga diko def la yaxaafuna nag lawmata laayimin ku ànd ak yàlla nak fok lu ne dana ñëw mais kumu taxa tok bobo kon li la tax juk xamuloko motax yàlla nak mom keroog bañ li ci gëne xass keroog nga gën jàpp waaw kooku mooy ci wàllu critères yi nga xam ni dañuy soxla ñi nga xam ni ñooy ŋànk liggéey war a yore responsabilité war ko partager yooyu ñu mën ko séenu ci ñoom pour liggéey bi gën mën ndox